màggal gi di xibaar yéen yi xamul te di xiyaar nara dem di fa ziyaar ngir jëmmi ahmadu mbakki yéen gaayi bamba déglu leen musa murit ba woona leen ndaw magak mag góor ak jigéen neen wuy ji ahmadu mbakki ñeenti fan ci aw safar na ngeen jug waajali safar ngir bambara biw safar la waaj li ahmadu mbakki murit si màggal sëriñam lay amee léppi ngërëmam ba mujj jekki fa di niru ahmadu mbakki murit si màggal sëriñam lay ame léppi ngërëmam ba mujj jekki fa këram di niru ahmadu mbakki fa man yuazim xurumaat yàllaa ko wax lii du puraat leeruk sëriñ bi lay royaat si leeruk ahmadu mbakki bi xadrihi laahi suyuux la bamba wax ba ñépp seex ku màggalul sëriñ ba feex doo seeru ahmadu mbaki ko ak tabaski fii zamaan ñooy màggalaati xadnaan seex bamba mooy seen ilimaan neen roy si ahmadu mbaki ahmaduna fatihati wa masjidi wa suurati wa kaabati wa xiblati ani muhammadu mbaki ahmaduna qiraati wa fikrati wa jalsati wa xudwati iqamati ani muhammadu mbaki ahmaduna tilawati huwa salati millati tilalati wa daawati ani muhammadu mbaki Cheikh Bamba màggal gu mu wax bu ñëwatee na ñépp fëx wuyu ji xalifaam te di ko jox moo doon ahmadu mbaki ca la demoon ca jay sasi si nunam ya naan du dellusi mu dellu si aamaka sa si nen fekki ahmadu mbaki ca la demoon ca jay sa si nunam ya naan du dellu mu dellu si aamaka sa si fekki ahmadu mbaki njaareem la njëkk a màggale satal sa sin la àggale fii lanu bamba jommale ci yàlla ahmadu mbaki bu ñëwatee na ñépp teew di tudd yàlla di fa géew guddeeg bëccëg bu kenn goo nañ tagg ahmadu mbaki jazbul xuluub ma mawaahiboo ki miimiyaat ñu jox ko gaayu neexi baat ñuy tagg ahmadul mbaki jazbul xuluub muxaddimaat mawaahiboo ki miimiyaat ñu jox ko gaayu neexi baat ñuy tagg ahmadu mbaki jërëjëf si ahmadu bamba